وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل فديتني بذي الكبار والكسل وجدتني منك بما بي غزل رفتني لك بما ملك نذل سفيتهم ري وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل سفيتهم ري وكفيتني الخجل yaa sal baqaay wa kafaytani alwajal fadaytani bisil kufoori wal kasal wajultani minka bi maay bi xasal ahlu xidma comme ni ñu ko baaxoo di defee saa yu mbale màggalu Tuubaa gi jub sey te muy takku jokk ànd ak comité bi nga xam ni ñoom lañu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu mbale mi loolu waxal ba ñu xëy tey ci altine ji dëppoo ak benn fanu safar fas yéene setal seen gox boobu di daaru xudóos sëriñ Cheikh Gueye Mouride di kenn ci kuréel gi nga xam ni ñoo yor organisation bi dellu si war na ak ñun ci taxawaay bi nga xam ni kuréel bi daana ko faral di taxaw saa su mbale mi agsi tey premier safar bu nekk ñu fas yéenee euh, bale dëkk bi ngir setal loolu li ci jublu mooy di teeru ganu Serigne yi nga xam ne ñoo fi ñëw ci màggal bi ci safar ngir saa bu ñëwee dañuy bëgg fekk kër yi day set mbedd yi set nit ñi di am fuñ jaar malgré ñi ngi ci nawet nga xam ne ndox mi day indi ay jafe-jafe toujours waaye dañuy ñaan yàlla rek wala ñu sabablu rek def suñ kemtilaal kattan bu ndox dee amit boo wax day fekk moom mbalit moom dana si noonu lañ koy amale chaque année waaye kuréel bii nag mooy ahlu xidma ñoom ñoom dañoo nekk fii gox bi ci Daaru Xudoos fas yéene at mu jot ñu dajale seen alal ci ay dërëm ñaar dërëm ba àgg ci million jël ay oto def ci gasoil euh, wut yeneen ay ay jumtukaay maanaam lu mel ne ay xéwal yu ñu togg itam ci barab bu tombee ba àgg bu ay boori 18 heures nit ñi dajee foofu bu ñëwee def xewlu bu ko defee mën a mën a mën a delluwaat ci yenn itam ndigal li nag toujours sëriñ bee koy joxe heure bu ñu ko jàppee rek fekk na ahlu xidma moom waaj na bu yàggoon na yàgg ba jekk ba taxaw di xaar nga xam ne bu suñu beegsee rek ñëpp lu ñuy mobilisé wu ñëw ci siège bi ko Baye Ahmad Dieng sànni sandika foofu la ñuy dajee bu ñu dajee daal di ñëw rek fas yéene laxasaay ngir liggéey sëñ ñu ngi ñaan mbooleem ñi nga xam ne yéene nañu te nekk ci dëkk bi wala ñu nekk ci bitim dëkk bi wala ñu nekk ci bitim réew mi sax suñu borom dimbali leen ba ñun ñii liñ fi am yàlla dañu ko fayee ñoom itam seen yoon yoon yàlla suñu borom fay leen lu lu lu ñu topp ñu fasaaleel ñi nga xam ne yàlla dogal na itam ñun ak ñoom ñoo ko bokkandoo woon nagane si daaw te yàlla dogal ñu dëgg ñu ñaan leen suñu borom yërëm leen te jéggal leen di ko ànda itam ak suñu mbokki Baye Fall yi nga xam ne ñooy jëwriñu mbaleen suñu tuddee sa ëm li moo du mel rek day mën a yóbbaale waa kër maam si Adam Fall yëpp waaye di ko ñaanal suñu borom gën ko fee yàggal gën nga xam ne ndigal la ci moom la ñu bàyyi ko képp kuy bulit ci Cheikh Ibra rek nga ko royee kon sëñ Amdi Moodu Mbenn mi nga xam ne mooy jëriñu Baye Fall yi ñoo ay oto toujours daana jël sept oto ba huit ba fa dañoo am ay nit ñoo xamante ne dañoo yor ay camion ku ci mel ne sëñ Mor Foor fa yor ay camion yoo xam ne sëñ Xaarim Jëng mii day lijjanti ay camion suñu am solo sekk day di jënd ay camion loolu nag mën naa toll ci juróom-ñaar su ñëwee itam ak benn bil bil boo xam ne day yoo xam ne dañu ko mën a tonnee ay rado ak fourchette mais bil bi ci boppam moom mooy dugg foofu man koo génne dañu ko jox su nu benn mbokk taalibe bu nekk sura bu am pësteef moo ñu jox bil bi ci gratuite boole ko ay yoo xam ne yàlla da leen tàggat seen xol bañ nangul ñu ñu jël gasoil sëñ Moussa Diop sénateur moo ciy def gasoil bi chaque année sëñ Moussa Diop boo ko ci ndax mooy génne bon de bu bëree bëri jox ko sëñ Aliou ñaan jox ko sëñ Alla ñang mu ñaan mi nga xam ne mooy jëwriñ ahlu xidma bu ko defee oto yooyu nag ci la ñuy ànd ak ci gasoil yooyu leneen yi oto yi ci des tamit leen di solal ay gasoil ñu ànd ñoom ñoom itam ñu leen di ñaan yàlla fay leen ndax ay sëfoor lañ yoo xam ne nangul nañ la lool wax dëgg yàlla na xam naa xol yi la sëriñ bi ba mu set ahlu xidma di kuréel goo xam ni dañu ko nos mu am aw doxalin woo xam ni moo tax ba mbale mi saa ak sey lépp lu ñu ciy def duñu ko uti fenn am Amsatou Seck mi trésorier boobule kuréel indil nañu ci ay leeral dajee maanaam bettu nit ndax euh, jumtukaay yi jëfandukaay yi daf ko yombal na yëf yi lool ndax nit ñi mën a am temps bi xëy na waaye lépp lu ñu naan am rek ci wàllu xaalis naka noonu amee nañ ko matériel bi nañ ko daan amee amee nañ ko ko lenn rek moo ci li nga xam ne ren boolewuñ ko ci mooy biir bi ñu daan gis ñu ko ci boole sax dañoo xool ne liggéey bi ren ji mbalit bëriwul ndax Tuubaa xam nga léegi daanaka oto yi mbalit dañ fee nekk mbalit yi du bëree noonu moo tax ñu wàññi biir bi sa nit ñi tamit bu biir bi ñëwee liggéey bi dañuy naan jàmbat ne seen yaram day laaj ñu bëgg a xidma daal di liggéey gone yu bari daan ko waxtaan naan biir day yàq seen tàngaay yaram ak yooyu daal moo waral ren di tamit ñu xool liggéey bi ñu ñu ko noonu waaye nag moom wàññiwu dara ci yëg waaw macha allah ndax fi mu sant nañu yàlla bu baax lépp mat na lañ daan toggee tamit nañ ko noonu lañ ko daan mel ne waa koñu nasru seen oto dem na fa ci màggat moo ko yor kër Sëñ Abdou Fata noonu noonu lañ ko defe nga xam ne waaw li ñu daan def mooy ren di nag boo gisee 20 mètres yi jëluñu ko ndox mi bari na dañ ci at at moo xamante ni dañoo ot ndox yi foncé yi daa bari lool ñu ligi jël moo tax ñu yëpp yëpp ay 16 mètres sa 16 mètres yi am na ci boo xam ne subaak léegi fi doon ñu ci 3 3 voyages am 3 voyages am euh, oto am na beneen boo xam ne fi doon ñu ngi ci deux deux voyages am nii ba nekk ci 3 ñi war a dem maa allah daal yëf daal moom taarkaal la suñu doon yokk na ci féewal baax a baax te day gën a jëm kanam nag ndax nit ñi sawar na si bëgg nañoo liggéey si addiya ji moom ñi ñaa ngi koy jox baax ba fi mu toll nii may wax yow gis nga ko moom nit ñi moom dañ lay dab di la ko jox rek waaw masha daal wajutali milka bi maay bi xasal rabatani man kafaaniya haduwi kuréel gi it bu weesoo taxawaay bi nga xam ni dinañ ko taxaw si fexe ba lépp luy mbalit ñu jëlee ko ci boobale gox dinañu waajal ay xéwal yu mucc ayib ngir ñii di bale mën cee xéwlu Malick sekk bokk ci ñu yor waañ bi indi na ci ay leer. di ñaanal ku tedd ki di ñaana ñi nga xamante ne tamit fekk woon nañ ko daaw tey suñu borom jël leen ñu ngi leen di ñaanal suñu borom doon leen yërmaane ñi fi nekk tamit suñu borom bàyyi leen fi ñu ànd suñu borom may leen dooley dooley dooley biir ak dooley poos ñun nag suñu taxawaay sagaane si liggéey bi mu waañ la seeg café ak togg waaw naar Diop mooy jëw jëwriñ xëy na nag daa génn moo waroon def lii ñu ngi siy tubb bu baax di jégalu nag mais ñun daal si liggéey bi si li liñ ne bañ xëyee ba léegi fekk ñiy balee fa ñu nekk ak lu mu sori sori ñu leen fay fekk di leen jox ay xéewal kafe añ lépp euh, lu waay di jëfandikoo rek ñu jël ko jom jox leen ñun loolu mooy suñu taxawaay si bala bi waaw te fépp foo xamante ne si mbalit nekk na fa euh, commission Ahlou Khidma nar a dem fexe ba jëli mbalit moom ba tuur ji fépp mbalit na ci dëkk bi nag taxawaay bi xëy na bi mooy juróomi at yaakaar naa waaw di di sant yàlla bu baax baax nag ba ñu yàlla mayee ñu fekk ko ay ati at waaw te day gën a ñaan tamit suñu borom mu may ñu gën ko di fekkee ay ati at waaw di ñaanal ñëpp daal suñu borom may leen jàmm a xéewal waaw may leen sanxar daarim sa lépp lu ñuy sàkku si liggéey bi suñu borom dafa ñu lu kawe suñu jot ñun ñëpp juróom benn manay mbaxal la ñuy togg juróom benn manay mbaxal kafe gaa nii am na was ataaya meew lépp am na wa kulli ma radatu min al malal madatali ma la yufariqul jazal yaa mamate laka tawajjahtu badal raaqibti saadati ladayka xutat fil adal yaa man kafaani al hidaa شيتني بخير خير في النحل يا من فداني بمن قبل محل جت لنا بمفرد فاخ الجمل قلت لنا مخجل جيش وأمل جت لنا ورد الفاق الجمل قتلنا مخجل جيش وعمل نبهتني تنبيه باق لم يذل أورثني أكرم ما منك نذل ناجيتني ربي بمخجل الأمل يا خير من ناجاه عبد بحمل hadaytani jaat bima haybi xadal waxutali ma laysa yanoohu kasal hadiyati jaat bima haybi xasal waxutali ma laysa yanoohu kasal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 وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل فديتني بذي الكبار والكسل وجدتني ملك بما بي غزل رفتني